seen analyse chronique yi nga xam ne leen koy jox saa su nekk gis nañ ànd gi Ousmane Sonko nag gis nañ ko mu génn sorti boo xam da doon wax ak ay militants pour dellu si Ndakaaru gis nañ tamit mu defaat beneen sorti boo xam dafa génn jàkkaarloog population bi di wax li xewoon ba tudd aji Sarr ak ak l'observateur bi voilà yooyu yëpp mu nekk loo xam ne ni nit ñi dégg nañ ko vidéo baa ngi ci yaakaar naa ne ci réseaux sociaux yeeg internet beeg yëpp voilà euh, fi may commencé mooy ñun ñëpp ci yam képp koo xam da ngaa opté doon dara surtout nag méccam journaliste moo xam côté boo ci nekkee nag moo xam yow bindkat nga moo xam yow communication ngay def moo xam eh, di nga moo xam koo mën a doon lépp looy def rek na leer na set ndax lépp loo def eh, boo fekkoon tey da ngaa bind yokk benn bind bu toll ni virgule bu yomal xiyaamee loolu dinañ la ko laaj voilà dana la audit laaj la loolu voilà fii moom voilà yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel bu baax comme audit ni mu amee fii ni lay audité di la xam nga di la enquête yooyu yëpp na leer ni comme ci mën a doon métier mi nga xam da ko opté def ko kenn du la ko jàngal nañ ci def loo xam ne bu ëllëgee boo fi bàyyee ko ah sa ginnaaw ni bandang parce que bind nag lu doy waar la ndax journal ku nekk koy jënd moog livre ñoo yem livre yi fu ne la ñuy dem ci àdduna bi moo tax bindkat yi nañuy xool bu baax baax a baax li ñuy bind bëgg a sosal nit ki wala bëgg a gaaruwaale bëgg nit ki bañ naa ko wala lu mu mën a doon wala fay ñu fay la wala lu mu mën a doon rek ñu ñëpp a ci yam nañu bàyyi xel bu baax a baax xam ne lépp loo bind ko bindaat te dana la audit malaaka yi moom dañuy audit dañuy audit ba mel boo fa dana la audit ba mel ni yow rek lañ bind voilà loolu na leer beneen bi ci des tamit moo di waaw Ousmane Sonko dégg nañ ko muy wax ci Adji Sarr ba tudd ak dëngin dëngin moom koo ko xamul mooy golo yi màggat yooyu nga xam ne <laughs> ci àll bi la ñu ne <laughs> maa ngi tuub bu baax a baax a baax ndax nit moom eh, dafa foor ba suñu borom wax dëgg yàlla eh, da ko jox wàcc waayam bu mat sëkk waaye jamono fi mu toll ak wax dëgg yàlla li xew ak Ousmane tamit ki ko seqal wala boog eh, li nu jàpp ni la ca xew ba tax tey ji coow li ak si fii ba Ousmane mën a génn di wax ba koy dendaleeg dangi ndax moom xam na lu baree baree bari te yaakaar naa ni doxul ci ak réer waaw bu nee dangin nag dangin moom liñ ci xam mooy mala la golo goo xam dafa màggat lim ci teg lan la dafa ABC ABC xam nga golo gu ABC moom dangin gu ABC moom beneen affaire la moom voilà kenn yooyu yëpp nekk na loo xam ne vraiment euh, tolluwaayu jamono la wax dëgg yàlla nit da nga foo xam ne ñu def la wala ñu bañ laa def lu mu mën a doon rek danga génn di wax ci wax boo xam ne ni yéeg-yéeg lay doon ci yow voilà Alla Ousseynou Gueye boobu noonu nga xam dafa bokk ci mbir yi voilà moo doon seet Adji Sarr voilà lii ma nga ca woon ci moom man duma ci jaar voilà lii ca nekkoon wala lii la journal bi bind nangam nangam moom lii la wax loolu yépp rek li ko waral moo di ñoom ñooñee nga xam ñoo seqoon mbir mi wax nañ te ñoom ñëpp dégg nañ liñ wax ñoom voilà kon yeneen leneen li ci des lépp mooy maanaam li nga xam ni moom lañu ñu war a jublu ci liñ war a jublu li ñu war a def mooy ñu bàyyi coow li bàyyi xëccoo bi xiiroo bee ŋaayoo bi amuloon njariñ réew mi ndax réew mi li ñu war a coow war cee wax mi ngi fi de nawet baa ngi waaj ubbi nawet bi inondation yi moom ku nekk xam na ko te nawet bi mi ngi waaj ubbi. beneen bi ci des yu baree bari yoo xam ne war nañ cee mën a coow yaakaar naa ne incha allah rabbi du yàgg tuuti ñu man cee coow ngir nit ñi xam ne loolu lan la waaye yaakaar naa ni yii moom war nañ ko mën a jëlee tege ko ngir ñu liggéey sunu réew dem sunu yoon parce que foofu la àdduna bi toll. kon nañu bàyyi xel bu baax a baax xam ne ñun ñëpp dañoo war a joxanti cër waaw nit nag xam nga rek yaa ma gën a xam politique ak ya ci ajoog waaw coow li fii waaye wax li bàyyi jàppal bàyyi loolu. dafa yàgg ci politique waaye nag li mooy ñu daje ñun ñëpp bokk ndey bokk baay di xàccandoo di dóorandoo lii mooy liy defarum réew saa waajee mën a defar sama waaju mën naa yegg ah loolu de du ma ni kenn rek mën na ko de ako partem de waaye sénégalais yëpp faw nga boole leen waaw kon Fall 94 Walf Sénégal lii leen indil